billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min alsheytaani irrajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'aziim yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi nuyu mbokk jullit yëpp ñu ngi nuyu bépp mbokk boo xam te ni yaa ñuy teewlu suñu jotaay di dégg suñu kàddu moo xam ci biir réew mi la moo xam ca bitim réew ñi ngi lay ñaanal sunu boroom subhaanahu wa tabaraka wa defal la jàmm ak yërmandeem ak ak njëggalam suñu bàyyee xel nag suñu jataayal yóbbuluk ndaw ñi muy jataayal xam-xam waaye di jataayal fàttalikonte suñu bàyyee xel nag suñ jataay bii mujj ñi ngi ci doon jàngale ci nit ki muy sàkku lu lew te bu sàkkoo lu lew kat mu bañ koo yàq te lépp lu muy lekk lu muy lekk di ko dugal ci biiram mu nekk lu xam te ni lu lew la lu wóor ne lii kat lu lew la lépp loo xam da koy sikki sàkk naan na wala liwut rek na ko bàyyi kon dafa war a lekk lu lew loo xam na ko ne lii kat lu lew lu teey la waaye muy bañ a lekk it ba suur këll ba biiram fees buy lekk na fas yéenee lekk loo mën a loo ba mën a jaamu yàlla lu a dëgërloo rek ba nga xam te ni dina mën a jaam yàlla te du loolu te bañ a lekk feesal biiram ndax feesal biir kat baaxut ci ki bëgg a jaam yàlla naan naa yàlla saytaane la moo tax sayyidatina Aysa di nettali ci wéral ne feesal ab biir ci ak lekk kat jaaduwul ci ab jullit moo tax mu ne xadd axbarat xibaar na ummu jamiixal na ndeyi mboolem jullit ñi Aïsatun mooy Aïsa sayyidatuna Aïsa radiya yàlla na ko yàlla dolli gërëm xanaa ci moom man yàlla ma nga xam te ni yoxin dana dimbale mu ne inna xiyaalal Mustafa naka njaboot ak ku ñu tànn ki mooy yonent bi sallallahu wa sallam alhaadi kay ay jubale albasir kay aji digal jullit ñi mu ne lam yasbahu mësuñoo regg yow ñaari bis min xub si taxaami ci mburum saxiir pepp ay li mu ci jublu mutataabi xayni mooy ñaari bis yu tegaloo xataa xubidaa ba faatoof na salla na dolli tedd alayhi ci moom man ka nga xam te ni hadaahu jubal na ko wartadaa te mu gërëm ko kon sayyidatuna Aysa day misaal ci lekk gu bari mu wax ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa kat mësta toog ñaari bis yoo xam te nii dañ cay lekk ba regg bis yu tegaloo yoo xam ne dañ cay lekk ba regg ci li wax xub ci saaxir muy mburum saaxir mburum pepp te boobaa sax mburum pepp moom nekkutam lekk ga fa gën lekk bu yam la rek waaye teewut ni muy lekkee nekk nekk lekk bu yam teewut mos ñu caa tegale ñaari bis di ca lekk ba suur ba ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wuyu jee boroomam moom yonente bi sallallahu alayhi wa nga xam te ni mooy aji jubale ji mu ne tamit wa axbarat ba tey na sayyidatna wax na ne bi annahu naka moom tuufiya faatu na moom yonente sallallahu alayhi wa sallam wa laysa xindahu te déet moom afiyaa muy denc la yaadum dara yukalu gog def na ko lekk illaa nisfu wasxin lu dul genn wàllu wasx min saxee ñu ci pepp waa axbarat xibaar na ba tey aydan ba tey radi yàlla na ko yàlla dolli ngërëm xanaa ca moom alxadir yàlla mi aji am kàttan mu ne kat sallallahu alayhi kat lim doon jiite jullit yëpp nga xam ne lépp nekkoon na ci loxoom téewut ba mu fi jógee wuyu ji denc dara ci alal waaw denc dara ci alal lam denc daal mooy genn wàll was te loolu boo ko ko joxee misaal min saxin ci pepp mooy juróom benn fukk yaakaar naa ci pepp la fi bàyyi bi mu loolu dong la fi bàyyi ak lim doon yilif jullit yëpp bàyyiwu fi dara juróom benn fukk kilo ci ay wasq mooy pepp wasq musaahim takk loolu nag boo ko xoolee ci xayma mooy moom la ñuy wax nisful wask mooy genn wàllu wask mu ne bi annahu naka moom kat kaana nekkoon na mu ne de sallallahu alayhi wa sallam yabiitu di xiif taawiyan yabiitu di fanaane taawiyan ak xiif huwate moom wa ahlu baytihi ak waa këram layaaliyaa ci ay guddi tataabuxan ñu tegaloo duuna xasaa in ci ab reer waxadaa i ak ab añ sala yàlla na dool tedd xalihi ci moom man ka nga xam te ni hadaahu jubal bi ko muqtadaa mbir mu ku ñuy roy mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat moom sayyidatina Aysa tey moo tax mooy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa fanaane ak xiif ba tàyyi tëddaale ak xiif te ñàkk lu mu njëkk waral ñun fanaanee na ab xef ba tàyyi moom ak waa këram moom yéen bi sallallahu alayhi wasallam ak waa këram ci ay guddee guddi yoo xam ne guddi yu tegaloo la maanaam ay bis yoo xam ne bis yu tegaloo la ñu fanaanee xiif te nekkul ci bis yooyu ne da caa añ wala mu reer ci bis yooyu day du añ du reer fanaanee xiif kon nag loolu lu jar a bàyyi xel la loolu na tax jullit yëpp war mën a gën a muñ xiif xam ne xiif ngànnaayu saytaan ngànnaayu nit ñi jëm ci yàlla lañ suur suur bu ëpp ba sa biir fees na mooy ngànnaayu saytaan moo tax Yunus alayhi salaam daan tere lekk lekk bu bari nit ki daal buy lekk na lekk rek ngir dëgër lu ñu mën a jaam yàlla sallallahu alayhi de fanaane na ab xiif ba tàyyi toog na ñaari ay bis yu tegaloo yoo xam te ni lekk duñu ci def ñu ba suuf toog ay guddi yoo xam ne daan fanaane xiif du añ du na ko bàyyi xel xam ne àdduna lépp ab jaaruwaay la àllaaxira mooy kër ga loolu nag boo ko bàyyee xel dina tax àdduna du la jaral dara te àllaaxira jaral na lu ne yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp yàlla na yàlla dolli yërmande ci suñu biir yàlla na yàlla fajal aajo yëpp barkeel ñu suñuy mbir yëpp taxaw ñu zaahir wa baatin nañu wàcc kàddu yi fii jox di ci dajee beneen jamono insha allahu taala in uridu illa al islaaha ma sataxtu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey